sëñ bi. dafa mel ni dafa dem. waaw dafa dem ñu ngi jégalu dafa mel ni réseau bi neexul ci booram ñu ngi jégalu 88. 628 89 90. ñu jël keneen. allo allo. allo. papa bu ñu sukkandikoo yaa booy Sophie pap euh, ci li euh, ci li euh, intervenant bi wax sànq cest bu fekkee da nekk ci kër goo xam ne. Mm-hmm. la fay charge yëpp. yaa ko dañ lay may jàmm. parce que yaa leen di dugal maa maa ngi ñëw doo neex a génne. nee na la la fa nekk nee na ba mu demee ba tàggoo kër ga pour génn doonoo laxasu ne du dem. kooku goro la waaye goro njariñ. kon côté matérialiste daf fay feeñ. goro ak njariñ. kon matérialiste dafay fay feeñ ñamul nag père mi nga xam ni boo amul dalay lay imposer parfois non mi parce que nga jàng li ma jàngat. li ma jàngat si ñu woote cest di ko kon goro yi ñu dëkk seen kër mettre leen à l'aise am ñoom kenn du leen imposer mais man mi dëkk sa kër nag vingt nga tëj bunt bi. waaw parce que aw ma. joxe woo fa dara joxe woo fa dara. amoo benn njëriñ. ki dëkk ci kër gi. ma yor mhm. a yem ak ki dëkk ci kër gi. kon yow da nga xaw a matérialiste. da nekk nit a intérêt. nangu woo ma eggale. demal. non demal demal. ah mais. mais su su euh, du dem du ba nit ñi dem Pape ba. ba lay dóor de. xam nga en <laughs> euh, am na benn internet bu wax sànq ne xale yu jigéen ñi sax tey. Mhm. boo amatul duñ la sëyal. xam nga en fait à la base ñenn ñi doo xam sax li ñu bëgg. parce que tey ki nangu borom këram ñëw kër ndeyam ak baayam. kooku bëgg naa sëy te yàlla rek a tax kon kooku mën nga natt bëgg sëyam te yàlla rek a tax du jigéen yoo xamante ni par exemple da nga leen di dëkkal rek dëkkal sa jabar xam nga sànq dama leen jox exemple ne leen dëkk sa kër goro taxul nga kii nu mu tudd euh, nga ñàkk jom bu mm-hmm. fekkee nga fay voilà condition nga fay def li waat même chose la tamit que ne tey am na loo xamante ni mën nga ko nawee tamit sa soxna parce que ki nangu tamit nga ñëw dëkk ci biir kër ay parents am naqar yi ci englobé yëpp parce que loolu xalaat bi njëkk mooy li ñëpp di wax rek kàddu gi seen universel mm-hmm. jëkkër ji daa ñàkk xoolu ñu lu muy def ak lu mu deful mm-hmm. kon kooku xale bu jigéen boobu nangu na la sëyal te yàlla tax loolu mi ngi sax euh, wàññeeku parce que waa ji wax na ko tout à xale yi jigéen yi si boppam ñoo dul nangooti sëyal ak ku leen mënalul tul dara ma ne ko ñenn ñi kon ki nangu nga ñëw ba si biir kër euh, papam ak yaayam kooku nangu na la sëyal tax deuxième intervenant bi dafa ni mooy tënk bi ñu wax rek. dama naan un polygame ku bëgg jigéen ak bëgg am ay jabar doo dëkk sa kaw kër ay goro. déedéet ndax yow duñ la dëkkal ba pare. ngay tànn seen doom nga takk ñaareel foo koy dugal. boobaa da ngay tuur rek. dëkk boobu dafa am sax demaat foofu rek. voilà non non c' est avec le temps les gens moom moi je pense que nit ñi dañuy dëkk dañuy dëkk seen kër goro yi. pour un laps de temps. mais bien sûr so boobu fi may ñëw mooy non seulement kii nee na mënoo takk ñaareel mooy ñi nga xam ne dañuy dëkk seen kër boo parents yi ba pare mooy entre guillemets yor nañ la dëkkal na di génn di doxaat nekk su leen neex jigéen bi gore woon bàyyi la nga nga ñëw sa biir kër euh, ndeyam ak baayam di naqarlu pour rebondir ci li ngeen wax jikko yi papa dama lay déglu parfois nee naa la duma ma retrouver wu parce que yow da nga ñëw indi valeur da nga ne le protecteur des valeur ancestrales valeur ancestrales moo tax tey ñaari nit woote papa di wax ne dëkkoon nañu seen kër biir kër goro ah. te bal tàkkul coow jibur ah. mm-hmm. parce que leer na la ne ñenn ñi ay valeurs soit ñu ngi fa toogee woon normal yor seen jabar yaa ngi dégg kon ba tey ci valeur mais bi mu waxee ne yor fa lépp da ne doo neex a dàq doo neex a dàq c'est un discours bu ñu warul am ci ay kilifa mm-hmm. xam nga lu tax parce que kon dinañ ne ok yow ko tant que maa ngi war a mën a yor jabar ji rek wala samay poche diis na rek je serai accepté alors dañ ko war a basé ci comportement tey li nga wax mën naa la ko nangul à 100 pour cent bu ko góor ki duggee sa kër di fa def ay loi am ki am ak ki ñàkk nga war a yemale même bu amee àdduna ak li ci biir te di dicté ay loi te jël sa bunt caabi ko parce que yow valeur yooyu ngay doxalee donc parfois dafay am ay contradiction ci ni ñuy demee euh, ñaar ñi woote ñi ngi ci toujours kapu ça ça casse encore une fois pour ces personnes yi nga xamante ni la lañ fa dugal kenn xamu ko mhm. deuxièmement ñi ngi ñëw di bëgg dicter seen propre loi te ku dem dëkk xale fii la ñuy doon sax ku dem doon surga ku dem ku dem doon surga ku fekk loolu la ko olof di waxee on n'en disconvient pas ah, ça dépend par la non de ne dañuy nekk surga mhm. waa am jom doon suleet so fi kër du am ñaari kilifa yaay booy mhm. c'est-à-dire surga bi bu ñu ko waxee voilà bu ñu mooy y a une seule personne. sama kër doo am ñaari kilifa dina rafet. di ànd bi dina rafet mais benn kilifa mooy am. Euh, bu fa wàccee nag xëy na. so tu sais y a des parents yoo xam ne ci góor yoo xam ne. Euh, ils sont tellement compréhensifs que dinañ xam la leen war ak li la war cest dina xam ñoom seen kilifté fan la yam c'est vrai nga ñëw en tant que doom bu jigéen ñëw tàggu sa papa ne ko papa sama jëkkër dafa génn mais man dama am envie dem sama kër copine seeti ko mu ne la déedéet wool sa jëkkër hmm. c'est vrai parce que sa jëkkër mooy sa kilifa hmm. mais loolu donc loolu ku ci nekk day xam sa place fan la nga yemale ko fa moom itamit mu xam place am fan la mu yemale ko fa c'est-à-dire xam mu am mu ñàkk mooy kilifay sa jabar jabar même bu fekkee ñoom ñaar ni ngi seen biir kër toi moom bu waree def dara am nga pour ne ko demal wax ak sa borom kër cër la rek. Mhm. te yaa ngi jàngal tamit ki la fekk si. Mhm. que ne danga koo may une porte d'ouverture ak cër pour que mu mën a am leneen. il faut pas ñuy taxer ces personnes Sophie. Mhm. ñenn ñi dañ ñàkk jom parce que la majorité la majorité. bu ñu nekkee di wax ne nit ñëpp parce que suivre naa internautes yeeg yëpp dañuy wax ne góor bu dem sëy dafa ñàkk jom si on les taxe comme ça am na ñoo xam ne seen condition moo tax li gën daal moo xam sa yor loo nga tax ko yóbbu moo gën waaw a am biir kër gi góor dem fekk sa jabar si kër way juram yi dafa am tenue boo fa war a am doo xuloo de xam naa. déedéet du question sax. xuloo moom doo def doo mer da ngay ree rek. mais xuloo déggoo kii nee na day xuloo borom. ree rek papaam génne ko papaam. internet bi nee na dafa xeex ak borom këram. Mhm. da doon jote bokk. da dafa xuloo ak borom këram borom këram génne. seen papa génne leen ku jigéen ki ñu génne borom këram. ci kër yow góor gi këram la ñu génne waaw. yaay dinaa ñëwaat ci yow Sophie dinaa ñëwaat ci yow papa mani bu fekkee da ngaa nekk sa kër goro da ngay rek yow da nga war a am bonne humeur rek fu mu toll. Sophie. Mhm. di nga ree ree xam ni ca biir aw naqar la. Mhm. benn voisine jóge ci koñ bi. Mhm. ñëw dugg mu leer la nga yow ca biti kii xam nga ko. Mhm. xam kii xam nga ni c'est une de mauvaise mœurs. ñëw dugg xuus ci biir kër gi ànd ak sa jabar loo mën a wax. wala soo waxee dal sa kaw. ñu bokk ndey nga xam ne kii kii ndeyam moo uuf kii ngénte ko kii ba muy dem école kii moo ko yóbbu ñoom ñaar ñoo bokk ñoo amandoo nangam ñoo amandoo nangam waa dëgg la loolu lépp ñoom ñoo ko amandoo. Mhm. mais doyuma ci sama jabar jubul nga gis muy ànd ak moom di génn ak moom di dem di dem ak moom marché di dem ak moom fu nekk te bindal ne kii doyu ko. Mhm. doyu la bëggoo mu ànd ak sa soxna nga nekk ci biir kër ga di ko muñ soo xeexee indi problème mbaa di nga génn bis bu nekk nit koo xam ne dangaa nekk sa këri goro di nga gis sa jabar loola naqari nga mii ko waale ko noppi loo xam ne su doon ca biti la. doo ko nangu mukk ci këru àdduna su ngeen wéetoon sa kër doo ko nangu mukk mooy li Sofia wax toujours rek da ngay d' accord. Mhm. da ngay d' accord nga ne waaw ngay subir waaw ngay subir te ak ay metti nekk sa xol di gis sa jabar di def loo xam ne wala sa jabar di ànd ak ñoo xam ne wala léeg nga gis nu def sa doom loo xam ne wala léeg nga gis nu doxalee loo xam ne su doon sa këru bopp kenn du fa ñemee doxalee noonu. Mhm. sa jabar sax du la ñemee tontoon noonu. nga xam ne dara du la tontoo tam dara. mi ngi seen biir a ngi nii ay càmm ngi nii mooy per nee na ah. kenn du fa kenn du. kenn du xeex biir këram te nga ni kenn du xeex sax statut de la liberté ngay nekk parce que doomam bu jigéen moo lay njëkk prévenir ne na sama papa moom. na la sama papa bu yeboo boo ñëwee na nga pinge say cër. ndax ci ñun ñaan ñëpp lay ñaf ci biti. ñu donc loolu généralement yow sa goro bu ñëwee sa mooy raw glace ndax kii ku wuti kër la wala ku dul wuti kër ko defati ci am wala ku wuti kër la. la ilaha hmm. ah yow it diis goro mosuma ñaan goro goro bu ma sa taxaw jëndal ma aw dàll wala mbaxana duggal ci ligne bi nga ñëw ne denc sa doom diw nangam la tudd. waaye bis bu nekk ma xotti la mbubu bis bu nekk ma jëndal law dal bis bu nekk ma jëndal la mbaxana mhm. ñeme koo wax <laughs> donc maye nga say doom te yàlla tax par exemple la jëlu goro ah ah nu ma neex lay daagoo seen kanam ñemewunu ma barka borom Tuubaa Mbàkke ma séquma koog ñoom mhm. ñoom ñoo ci dugg toog ah nanu encaissé mhm. nanu endossé papa boo dajee ci goro bu la gën a dëgër bopp boo dajee ci goro bu la gën a dëgër bopp kër gi du tas. am na ñoo xam ne papa amuñu ndoxu bët comme ni nga koy waxee. amuñu kër sa. man nag sama kër nag dafa naqaree tas ndax la ko samp. mais papa doole démb ak doole tey benn tey amatoo doole ki la fekk si moo la ëpp doole moo xale yu góor léegi ñoo la ëpp. yow da jàpp ne papa amatul doole non am na doole mais taxawal. tey xale bu góor boobu bu duggee sa kër. yaa ngi koy tooñ. nga ne ko génnal mu déggal la génn. alhamdulilah mais am na góor yoo xam ne mën nga leen génnal ñu ne sama jabar alxayri laa ko takk yaa nangu woon na ñëw ci kër gi génnuma ma foo jëm. ay gone dëgg ñu ngi nii. ñu xool na ne papa amatoo doole. cuun cuun xeex yëpp ŋàbb ay kurpeñ ak essence de coup de poing. Ah. moo ci gën a sedd. Mm-hmm. ah bon. dëgg la ak tubaab Mbàkke biddaa ah man mbay góor fàll. ku may dëkk de na nga bu baax a baax a baax xeex yëpp ŋàbb ay kurpañ damante ay bëñ tuurante ay bët moo ci gën a sedd ci xeex yëpp nag barke borom Tuubaa Mbàkke mag mën naa rukku laalo ba mokk te du kàndang kon yow père da bëgg a waxee ancienne gloire nga kon nag ah borom kër dama lay catu waaw mais borom kër tamit de bu yoree këram papa ba gorom ñëw tekk ko ba mu nangu ko ba mu tenir ko tet yaakaar naa ñaari jikko yu metti yooyu bu dajee si kër kër mën na tas foofu rek laa doon conclure kër mën na tas. na na non kii kii non man waxambaane mën ta tas sama kër. Mhm. ah bon goro rek papa am na goro yoo xamante dañuy tenir de. Ah, nooy tenir eh, par exemple nga accepté Sophie nga accepté nit mu ñëw sa kër génn kër waaw Sophie. Sophie génn kër gi. waay Samba dama seet ancien bañaar la gën a neex repris de justice bi la gën a neex demal nga seet ko. Ah. nga lon koo ak moom muy sab goro mu ñëw dëkk ak man su ñëwee day lem geenam ci samay loi lay jaar barke borom Tuubaa repris de justice laaloo ki nga xam ne day dugg di génn di fël di génn nu ne sax def na crime. su mhm. dëkkee man nemm dina ko def. papa yow mii da ngaa sa bopp. barke boron tubaa mhm. non ndaxte maa moom sama kër. sa kër moom sa kër la bu la neexee sa kër yaa ko moom. dama caaroy géej nga laaj ndax sama kër am na nii ak nii. sa kër laa dëkk. sa kër yaa ko moom d'accord naa papa wuy wuy Pape naa ne sa kër yaa ko moom d'accord naa yaay imposé d'accord naa heure bu la neex ngay teg non non ki ngay imposé mooy ki ngay sant muy bañ dama ne man imposé teg sa sax am na noo xam ne soo ni mele doo dëkk ak man. Mhm. amuloo fitu dëkk ak man. muy góor muy jigéen. Mhm. waaw muy góor muy jigéen. c'est que da ngeen am na aussi ñi ngi xaw a am lu ñuy jaawale jamono ji ñu toll nii. lawoon moo woon nii. ñoom seen jamono dañ daan dem seen kër goro yi mag ñi. wax na ko daan dañ daan dem seen kër goro. wax na ko fi dafa dëkkoon kër goro. mais di nga génération bii ñëw léegi. Mhm. Mhm. xalaatuñu di dem kër goro. sax di fa yendu deux fois dans le mois. suñ demee ma wax la ku dëkk ci ay goro dañuy dañuy dem wuti seen i appartement dëkk. suñu demee ma wax la ku dëkk ci ay kër goro. les temps sont évolués amul benn problème. xale yi xalaatatuñu loolu. amul benn problème ba pare Sofia. damay parce que maman boo ko defee ñu xool la bëti ñàkk jom. ba pare gis am na beneen problème boo xamante ni góor ñi dem fekk seen jabar si seen biiri kër am na si góor ñoo xam ne du ñu wax li soxna si wax mooy am am na. Mm-hmm. mais am na si tabaarkalla macha allah yoo lingeer yoo xamante ni. Mm-hmm. sëy rek moo leen. waaw waaw. waaw ngay wax góor ji di leen toppatoo. waaw war nañu leen ni ñoom moom lii. mais nag gis nga góor bu amul job. Mm-hmm. ñu teg la fañ la war a teg. góor daal soo yoree soxna job moo ko war a yor. d'accord. d'accord gis naa koo xam ban koo génnee. Mhm. moom ku góor ka jabar jee ko génnee ci kër baayam la ne woon. Mhm. ñu xeex ñaar coow daal di am ci biir kër gi. ñu mhm. di génne wali si sànni ci biti. ay xaritam di fataat di dugalaat ci biir mu naan dootu fi dugg waa nga xam ne jekka day waral loolu. jekka de moo waral loolu. dem ba jigéen di génne sa bagage. Benoît nee na mu ngi lay nuyu mais li ngay wax ni yëpp c'est parce que ki sa goro dafa dafa pour yow ki ngay génne daa yorul rek su yoroon doo ko génne. Mm-hmm. nee na mi lay nuyu di bu baax